asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu borom yàlla kese barke bi yow man xaam lakk man namoon naa leen waaye namoon ngeen ma maa ngi gis abonnement yi maa ngi gis commentaire yi maa ngi gis xem yi waaye bii moom bëgg naa ko dee leen ma bësal rek xem like bu baax a baax barke bi yow man xaam lakk nii lañ ko woŋ la ma leen dox woŋ ràjj ñu leen leen di koy woŋ ngeen muy arrière rek barke bi yow man xaam lakk man kontaan naa ci yéen waaye nag fan yii damaa gis Siteu mu wax wax ju am solo wax joo xam si ndeysaan bi ma ko déggee sama yaram daf maa wax na wax joo xam si ci jeunes yi ci xale yi nga xam ne amuñu liggéey Siteu moom laa gis mbër moo xam ne chaque instant day fàttaliku sëñ yi barke bi yombal xaamal ak ba day dem di leen nemmeeku da leen di soññ pour ñu liggéey pour ñu wuti liggéey da di soññ bu baax a baax barke bi yombal xaamal ba Siteu mii dañ ko war a sant bu baax a baax gërëm ko moom xam naa ni moom bépp ndaw bu koy jege moom dina la teg ci aksi boo xam si say waajur dinañ kontaan bu baax a baax ndax ndaw dafa war a jaamu yàlla liggéey loolu moom baax na ci ndaw jaamu yàlla liggéey baax na ci ndaw te chaque instant maa ngi gis surtout naan xale yi amuñu liggéey xale yi amuñu métier ndeysaan léegi nag xam noo bëgg ñu dem déglu si te te ñëwaat ci palatu bi. waaw père maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp waaw gis nga xam nga père xamal lan booy yi am na ci ñoo xam si dañuy entraîné ba toll nu leen neex entraîné ba toll nu leen neex yow xoolal liggéey amoo métier boo kii sa yaay ñu la gaz ba jeex na per foog nga am nu mu demee foog nga am nu demee mais xam nga sekkee sa maa ci booy yi nañu liggéey dama bëgg état bi laay waxal ñu jàppale booy yi ñu liggéey booy dañoo war a liggéey ndax gis nga xale xale dafa war a liggéey liggéey xale mooy nekk magoo lekk xale dafa war a jaamu yàlla liggéey loolu baax na ci xale. mais bàyyi xale yi ñuy entraîné duñ leen lijjanti xale yi ci nit ñi lañ bokku damay tiitaroo xale yi suñ jógee ñu ne booy booy man booy dama leen di tiitaroo du ma daw benn booy booy dañ may fréquenté si mais booy suñ dikkee dama naa leen bàyyi yéen a ngi liggéey bàyyi na góorgóorlu bàyyi yéen a ngi fonk seen parents yi man ci loolu laay dox amul kii amul kaa du ma xool benn booy ci lu ko neex man booy duma leen daw ndax tu tànk yi dafa am loo xam si ñoon na ci ñoom foo nga leen di di waxtaan ak ñoom mais eh, booy yi soo leen dawee xoolal soo leen dawee soo leen dawee bu yàggee ñëpp daw leen bu yàggee booy yi dañuy ne ci terrain bi di décompté te loolu baaxul nañu dem liggéeyi booy yi dañuy entraîné ba toll nu leen neex su ñu amul métier mooy loolu te bu ma soxee benn booy du fi nekk di kii fii banlieue bi ay booy yu gëm seen bopp ñoo fi nekk ay ndaanaan ay bañkat wala ngaa xam ne booy yi dañ nga xool seen yaay fajar la ñuy jóg gàdd seen paan yi dem di wuti jën ñii dem fële di wuti salaat ñii dem fee keneen ak keneen ñii di yëngu ci leneen seen yaay ay jàmbaar lañ suñu maire yi maire yi bala ngaa xam dara xoolal nga diglu ba ilimaan paaxuma paaxuma buy xut buy buy buy buy noddu da ngay gis maire yi di ci génn deux heures pile quatorze heures pile naaj wi tàng jër nga gis maire yi di wàcc am na ci ñoo xam ne guddi la ñuy wàcc père banlieue bi ay maire yoo fi nekk yaay booy yu gëm seen bopp yaay booy yoo xam ay jàmbaar la buñ demee ba mënatul seen doom ñoo leen war a dimbali am na ci yoo xam ñu nga liggéey di góorgóorlu bu baax a baax dañuy góorgóorlu bu baax a baax ay bañkat lañ kon baale bi jël fi ay booy ñuy liggéey liggéey bo liggéey boo mën a am baax na mais booy ay booy gëm seen boobu ay ndaanaan ay a fi ne jaajëf père waaw loolu kese la du leneen man bu ma soñoon booy yëpp am liggéey bu ma soñoon booy yëpp am liggéey di dimbali seen waajur yi def am seen soxla di ko faj jërëjëf père waaw nag ndeysaan gis ngeen Siteu Siteu ngi noonu xam nga ni lii daw na yaram lool nee na xale bu ndaw entraîné tol nu ko neex barke bi mal xaama la kabar amul liggéey bu ko yaam ne gaz ba jeex na rek foog mu am nu def li lay wurusu li ak mbokk président Macky Sall maa ngi lay maa maa ngi lay wax ni la li lay ak mbokk ndaw ñu fexeel ñu am liggéey am na ci ñu am liggéey am na ci ñoo xam si ay diplomate lañ am na ci ñoo xam si ay lijaasa yu rëy lañ yor ba ba pare amuñu liggéey li lay wërsul yi ak mu mbokk nag wutal leen xale yi liggéey jàppale leen xale yi taxawlu leen bu baax a baax ay jàmbaar lañ nu am na ci ñoo xam si nu ngi nanoo liggéey am nañ jom am na ci ñoo xam si nag ñu ñàkk jom la ñooñu ma wuxuma ci ñoom dara bu ngeen ma diggee bu fekkantee jom mi ngi ci yéen jéem leen a wuti jom te te yàlla tax ak mbokk lenn fi laa koy nag waa baynukum ci yéen xurujukum guppoo gupp gupp faada gupp laamat gupp lëfër lëfër wasalaam